waaw ah, permis boobu euh, dañ ko ko joxoon Gambie la lañ ko defaree Gambie lañ ko defaree euh, permis boobu may na ko aussi mu dawal oto fu ko neex mais vous savez aussi fii dafa am législation boo xamante ni c'est très particulier dafa am ay conditions yoo xamante ni permis noonu nga ko war a yoree pour mën a dawal ici au Sénégal de toutes façon façons euh, soriwuñ si point boobu ce qui est constant c'est que woon permis parce que permis Sénégal fii gendarme moom lañ ko laajoon mais di moment amu ko dañuy jàpp ne conduite sans euh, sans permis bi encore que une fois permis bi muy wax nekkul woon ci moom dafa ne permis bi dafa amoon ku ko sàcc dañ ko dañ ko sàcc ci kaw loolu aussi ma ma quand même na oto bi sans permi bi ñu ko arrêté aussi carrément bu doon permis te assurance bi euh, bi ñu ko laajee euh, gendarmerie nee na assurance bi baax jërëjëf merci beaucoup. constitué euh, le sieur Sidi Diop que j'ai défendu. Alors nous étions cinq avocats à l'avoir défendu aujourd'hui. Nous venons de finir euh, les plaidoiries. Vous étiez dans la salle, en tout cas certains parmi vous étaient dans la salle. Et vous êtes sans savoir que Madame le procureur de la République euh, a pris la parole en demandant à ce que la loi soit appliquée. Eh bien, nous avons pris le ballon au rebond en disant au tribunal que la loi devrait s'appliquer de cette manière. Alors, c'est un dossier dans lequel le sieur Sidi Diop a reconnu les faits d'avoir eu à conduire sans permis. Et vous avez vu qu'à la barre du tribunal, il a présenté ses plates excuses. Mais il a pris l'engagement solennel de ne plus refaire les mêmes faits, les mêmes actes. Les mêmes actes n'allaient pas se reproduire. Alors, il va prendre toutes les dispositions nécessaires à la délivrance des permis de conduire pour qu'ils soient en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 mais si côté assurance bi nee na ki ko jaayoon oto bi moo ko joxe noonu assurance bi ak passava bi loolu euh, du coobareem bopp en tout cas defarul euh, assurance bi li ñu ko mën a toppee rek mooy euh, permis sans conduire da doon dawal oto te yu roon te biñ ko laajee aussi dafa ne dafa buggoon reeri ji chauffeur bi nag dafa absenté woon ci la profito dawal oto bi gaa distance bi soriwul ay quelques cinq cent mètres amul benn intention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 waaw ah, permis boobu euh, dañ ko ko joxoon Gambie la lañ ko defaree Gambie lañ ko defaree euh, permis boobu may na ko aussi mu dawal oto fu mu ko neex mais vous savez aussi fii defam am législation boo xamante ni c'est très particulier dafa ay conditions yoo xamante ni permis noonu nga ko war a yoree pour mun a dawal ici au Sénégal de toutes façon façons euh, soruwuñ si point boobu ce qui est constant c'est que woon permis parce que permis Sénégal fii gendarme moom lañ ko laajoon mais du moment amu ko dañuy jàpp ne conduite sans euh, sans permis bi encore que une fois permis bi muy wax nekkul woon ci moom dafa ne permis bi dafa amoon ku ko sàcc dañ ko dañ sàcc ci kaw loolu aussi ma ma quand même dawal na oto bi sans permis bi ñu ko aussi carrément bu doon permis te assurance bi euh, bi ko laajee euh, gendarmerie nee na assurance bi baax